arbitre baa ngi waaj a sifflé wala bokk ndaysaan plateau moo la woon ginnaaw ndaysaan mooy laaleeg ci plateau cokkaas na waa combat bi lu mu nar ndaysaan plateau ak booy bambal ndaysaan plateau ñu noonu ndaysaan plateau plateau Boy Bambal ndeysaan plateau daw na jël ko plateau jël na ko sol na ko Boy Bambal bañ na ndeysaan plateau ngi dóor ci suuf plateau ngi dóor ci suuf arbitre toogal plateau Bambal ñoom ñaar tolloo nañ doole plateau ngi dóor plateau ngi dóor plateau ngi ci suuf plateau ngi dóor ndeysaan plateau ngi dóor ñaari xale lañ plateau bombal ndaysaan ña ngay xeex booy bombal fay na téere yaa ngay dagg mbaa bu daanu du am booy bombal la ngay dóor plateau sol na ko caxabal plateau bañ na booy bombal plateau ña ngay laal di laal ndaysaan ña ngay laal ku di laal plateau booy bombal ndeysaan plateau booy bombal plateau booy bombal ma ngay xeex ña ngay xeex dóor mu daanu dóor mu daanu plateau dóor na ko dóor na ko dóor na ko mu daanu plateau dóor na ko mu daanu eh plateau dóor na ko mu daanu plateau dóor na ko mu daanu eh plateau